Abonnez-vous vous la chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes C'est su ne ngeen ak jàmm la chaîne FTTV Sénégal Nous sommes parrainage nama ci mi di Sénégal tey tamit lañ de collecte mandataire parti yu C'est si ni mel parti di Pastef di nek ngandam juriste ci biir parti bobé di tamit ab mandataire ci biir parti bobé koké moy dalal xelu patriote yi di len xamal que ne plan ba won moy batay plan bobé woni wul batay té moy que ne kii di président Ousmane Sonko mom moy plan A waaye tamit mom moy plan Z ci biir parti bi di Pastef koké di sen leader lañ ma paréné ci parrainage bi ñuy amal ci lolé nak ki di Amadou Ba oo ci patriote yëpp ne ñi nga xam ne ne dañoo nekk ay partisans ñooñee nañ focus génnee seeni carte d'identité daal di dem parrainer kii di président Ousmane Sonko ndax kookee ci waxtu bi ñuy wax ci réew mii di Sénégal amut lenn lu ko war a mën a tere mu nekk candidat ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm. waaye tamit on ñi ñu dippee ay leader ci biir parti bii di Pastef ngir ñooñee gën amal li ñu dippee massification. maanaam ñu gën a boole ay nit daal di leen gën a xamal que ne kii di président Ousmane Sonko dinañ ko parrainé ci réew mii di Sénégal nee nag pare nañ ngir pare ne kii di président Ousmane Sonko ngir kookee daal di bokk ci jongante présidentielle 2024 ñi jëm ngir kookee le 25 février 2024 ci guddi googee ñu daal di déclaré que ne moom mooy cinquième président ci réew mii di Sénégal. li ni mel la kii di Amadou Ba daal di xamal sénégal yi daal di leen xamal que ne kii di président Ousmane Sonko mooy seen tey. est un candidat suba waaye tamit ci euh, yalla moy nek 5 cinquième président ci réew Sénégal. abonnez-vous chaîne FTTV Sénégal la des patriotes